Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu téléspectateurs yi ñuy suivre ci la chaîne des valeurs Mourchid TV dal leen ak jamm. Internet yi nga xamni itam ñi ngi nuy bàyyi xel ci chaîne bi di Ken bugul TV fu waay mën a rek fekk na la fa talal la samay yoxo di la ñaanal jamm. di balu ak itam képp ku nga xamni ni mas na dégg suñu kaddu ñakul kaddu gu recc ba sabab njuumte kon nak ñi ngi leen di ñaan ngeen balnu ci ak ma delu seti ngir fesselati mbax mbax nak ben bat dong la waye meun nañu ci wax bes bu nek ba mu mat ben siècle te duñu ko jeexal nama ko diggee won ci sunu émission bi nu wessu ñu fas yéene jox leen ndewenal lu jóge ci jambar ji kenn bëggul bu cheikh mustafa si al mourchid gis ngeen ci njaal ben korga ba tay ci bisu kori gi bés bu ne kenn bëggul bu sëriñ Moustapha Sy mi ngi doon sol di nemmiku askan wi rawatina cellule yi nga xam ni samp na leen ñu nekk ci gox-goxaat yi ngir wasaare mbaax ren nag mu jagleel ko cellule yi nga xam ni ñoo fare fii ci région bu Ndakaaru kenn bëggul bu sëriñ Moustapha Sy nag dafa réussir ay mbir yu jafe loole moo sabab duma deñ ci di ko wax jàmbaar ji ci moom laa gisee mu tambali fajj ci atum 2019 avril 2023 mu fetu 12 milliards fukki milliards ak ñaar mu don nak alal ju nga xamni te dul ci banque di nelaw ndax du ben du ñaar mu wax len ni ku fekk sama deureum ci banque yi jëlal ma may la ndax eh, limu gëm alal njariñam dafa bok ci teral jami yalla yi mo sabab fukki milliards ak ñaar yoyu lu ci baree bari daf ko delloo ci askan wi waaye nag la ma ca gën a saf moo di milliards yooyee amul benn bailleur bu nekk ci ginnaawam ngir di ko financé ay la yéwén moo ko ñaqal boppam ñaq googee itam jógewul fenn fudul ci gàncax gi kon nag yàlla na ko yàlla gën a dëgëral te gën ko sàmm ndax nag dundam am na njariñ ci kaw suuf macha allah kon nag gëstub tey bi dañuy résumer tournée yi nga xamni ken bugul bu Serigne mustapha si don nako def ci koor gi donte ni journée bu nek dañu ci cof rek yow mi nga xamni nak da nga bëgg gëna gën bo delo ci chaîne bi di ken bugul TV di nga ci fekk intégralité wu tournée yoyu le kon nak dama koy ubbé ci yennat ci ay kilifa mo xam kilifa diiné la wala yu aada ñu wax seen gis-gis ci doomi borom bammel bi. man la Moutaga Dramé délégué de quartier jamagne Euh, kilomètre 16 route de Rufisque fii ci Tivaouane Diacksao man la Oumy Diop nekk euh, bàjjunu gox fii ci quartier Mountaga Dramé nekkoon tamit conseillère municipale pendant sept ans ci mairie bu Tivaouane Diacksao Mamadou Bass laa tudd président délégué quartier commune Tivaouane Diacksao kenn bëggul euh, naa sawar tuuti wax ci moom parce que bon dafa social ma gis li muy defal waa waa dëkk bi mais waa commune bi te li muy def dafa rafet ci ki am ki am def ki am def loolu dafay rafet moo gën ki am toog ci bañ a gestu kenn musiba naarul laay ay délégué de quartier lañu ñun koy jàppale suñu gox rek dégg nga Eh, dañ lay sant dañ lay jàppale daal dégg nga jeunes seen bopp ku ci nekk dégg nga kenn bëggul te war nga jàppale kenn bëggul. kenn bëggul la ko jar parce que kenn bëggul liñ ko xamee ñun dégg ko moo tax ñu sawar ànd ak moom ba fu muy jàpp fu muy taxaw ñu sara taxaw wax dëgg yàlla ak ñun dañ koy tiitaroo ndax ñun dañuy tiitaroo kenn bëggul même bu ñu demoon ba kili koro dégg naan ñun kenn buggul ñoo bokk dëkkuwaay rek mbégte si ñun kenn. du tey rek laa ko sopp nëpp amul kubéer miinuma ko waaye wallahi dégg naa ne mu ngi def ak mbooloo mi mboolo yi mu seeset daanaka kaddoom ak loxam jógul ci ñoom xam naa nit ku social la nit ku mën a joxe la te loolu askan wi daf ko soxla parce que dañu nekk waxuma ci dëkk bu sous-développé mais dañu nekk ci commune boo xam ne bi dañu sous-développé torop ak suñuy jafe-jafe inondation yeeg yenen ak yenen ak yenen kon ku melni kenn bugul buñ ko fi amé muy nit ko xamné ki da fay dox ci social di dimbali dañ koy saluer. parce que kenn politikul dafa ñew yalla ko fi mu ñew di jappalé doomu adamé kon ku mel nonu seen yi ñep ñep ko wara jappalé kon kenn dañ koy ñaanal rek yalla fu mu xam lu mu bëgg yàlla ko yàlla jàpp vraiment sëriñ kenn bëggul bu sëriñ Moustapha Sy defatina maninam ndax lu ne fàng kenn du ko jiyax mooy mara bi mën ci poos yi mën ci tawar yi mooy sunu missionnaire waaw lekkul dara bàyyi kenn kon kii mooy l'homme de Dieu l'homme social amuñu fayam daal yàlla lañ ko bàyyeel dama kontaan ba mënuma wax kon nag euh, sang bi daal amuñu fayam yàlla lañ ko bàyyee yàlla na ko yàlla fay ci barki Serigne Moustapha Sy amiin incha allah cellule bi ci la kenn bëggul bu sëriñ Moustapha Sy dooree tourneem muy cellule Manko gis ngeen noonu ñu def waajtaay wu am solo ngir seenu seen gan gu màgg gile waaye soxna si moom itam lu ne daj na ko ngir ñu dëkk ko sunuy micro mu wax kaddu sédé ci jambar ji kenn bëggul bu serigne Moustapha si ndax dafa agon ci tawat fu nga xamni yaakar jeexon na ci mom jambar ji jël ko ci kërëm yobbu ko ci clinique yi topato ko ba fi mu ne macha allah mi ngi sant yalla bu baakha bax alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin li dama ko yag bëgg li suma ko defalon ci sama dund rek ma am lu ma neex parce que tamit man doomu lakkat la balanta ak jola ñoo ma jut ñun dañu xam ku ñu defal teraanga buñ la mënta delloo teraanga di la ko waxal lii may wax nag na ko Sénégal gi yëpp dégg nag bëgg naa àddina yëpp dégg ko ndax dafa di lu baax li mu def keneen ku ko defoon nga am ma wax lii ma wax parce que man li ma def moom kenn xamuma bu daje woon nag man ci mbette du ma xam fi mu ma jëlee nag daf ma jëlee ci kaw lal bii te man mi ma fi jëlee yóbbu ma ci clinique aw ma fi mu ma jëlee te moom moomu sang bi amul fi mu ma jëlee bu ma fa nekk gis naa fa juróomi yoo xam ne ñëw nañ hospital ci génn Kër Massar ma fa demee boobu témoignage lañ ko wax ne sëriñ bi toujours mu indi fi nit kon nag li mu def du man rek la ko waaye man sama bos man moom laa gis man sama bos moom laa laa xam na yóbbu kenn bu fu mu bëgg a ma intellectuel naa loo xam ne léegi laa mun di jóg di toog ci waaye dama daan tëdd ñeenti ponk la ma daan yëkkati te bu ma jógee toogaay bi du am sax 10 minutes ndax damay jóg rek pour ñu nettoyer man sël mu galax ndiku ñu mën maa jox samay garab ma tëdd daal du ma lekk du ma naan waaye kere bu ma duggee ci clinique bi keroog laa mos a gis nelaw ba sept heures et macha allah kàddu yi kàddu yi mbégte la moom dafa ni woon sax du génn ci clinique bi te indiwuñu caméra yi mu def ay seede waaye bi ñu ko waxee jàmbaar ji def ko gàntal ndax itam loolu taxul woon muy def. bi ñu génnee itam daje nañu ak benn artiste rappeur moom dafa taalif way jàmbaar ji kenn bëggul bu Serigne Moustapha yi xanaa ñu laaj ko rek lan moy sen relation ba tax mu bind way wile euh, musuma ko gis nak quoi musuma gis jax dañ à travers youtube la ko gisee bon ma gis euh bu dé social à 100 mi ngi ciy taxaw mi ngi euh département bi yépp ci ñaan ci social ak ndimbal ak leneen ak leneen donc lolu moma pousser à ce que ma am tiofel ci ben morceau bu moko defal sans intérêt ta yalla rek tax parce que ko musul gis laaj ay argument ci moom dugg YouTube xoolee affaire am defar ko morso waaye ko lool yaakaar naa benn benn intérêt amu ñu mel ni kenn bëggul dañ leen a soxla fii ci département bi àdduna sax moo leen soxla am na yeneen gox yoo xam bu ñu leen jotoon euh, dinañ leen gën a yëkkati fa gën a kawe. parce que koo xam ni ay nit yor na milliard toog ci dëkk bi mun ta génneel nit benn pot meew jox ko ko donc ñu ngi koy ñaanal yàlla euh, lu mu bëgg ci mission bu mu nekk yàlla na ko yàlla defal euh, ci barke waajuram bu ñu naan yaa Fatima parce que dégg naa ci. Euh, Jigen di sonon la te ku ñak da ngay jarñu lu naan nit ku ñulub sa sa jëf da nga yak dom ju bax da nga yak dom joo xam dina defar aduna donc lool moom feeñ ci bëggul man la soxna Nabou jité ngor ak jom waaw yakarna liñ fi gis tay lepp sang be ko waral taalibi Serigne mustapha bobu neena la ciowli ciowli mom la de mo waral ñu def ndog li ko yóbbu ko ci jàkk séddale ko jaamu yàlla yi ndax ndeysaan boolewu daraa ki wax waaw sant ko bu baax nag sant ko ndax gaynde njaay la nag waaw gaynde njaay la dalin kóol la wax dëgg neex yàlla ndaanaan la daal ndaanaan la ci biir ndaanaan

ndimbal limi def loolu nak motax mu ñew su ko defé ngeen bal ñu wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bëggul ma sëñ Moustapha bëggul Fatima mu yaayu Fatima jërë ngeen jëf lii laa ne woon dina dina dina mën a parce que ku baaxoon kuy def lu su ngeen ko maa ngi nuyoo bu baax di leen siyaara di leen ñaanal guddi jàmm ci kàttanu suma borom. ah ni ko maam Khalifa waxee loolu mu am xam nga day def di defati donc àdduna nag. nekk ak li la yàlla sarax li la yàlla sarax si ngay baax si ngay bon donc ku nekk tamit ak sa ngëm-ngëm donc moo tax kooru ren ma am yéene ju sell toll ci ne semaine bu ne dinaa wàcc ñaari cellule incha allah donc nekkut loo xam ne dañ koy def tey suba ñu ko defaat waaye lépp nag mi ngi tënku ci résultat parce que man soxlaawu ma desitu temps Firawna li muy kàccoor kàccoor bi Moussa di ñëw ci moom dana ko fa xuulaa lahu xawlan layyinan communiquer ak na ci kàddu gu nooy ndax kilifa la kon man lu ma def rek ci alxuraan laa ko tëralee malgré dégg ni ñoo dul wute ak jëfin yi gawuma alal ci bank gawuma alal ci pos alal pour teral gor dongol ak faj aajo wa ma salik ala ibn asisin wa salaamu alaykum Gok. kon nag téléspectateurs yi ba léegi ñi ngi ci zone bi nga xam ni fa la selilu ngor ak jom nekk xanaa rek ñu dellu tabla Tivaouane jëli jàmbaar ji mu yegg si nag fii ci ngor ak jom ngi lay nuyu bu baax di jaar di la ñaanal guddi jamm ci kàttanu sama borom nga aduna mom lima wax ba may tej sama programme rek modi di mom da fay xar wala xale bi doxi soxlam ndax li fi jaar ci yonenti bari nañ trop mais bu Muhammad ñewé la tej buntu bobu nak ku baax dina amat. way yonenti mom du amat ma teg ci tamit ne ku sañoon ku ne booy tekki fekk ndey ak baay mais pour nga dégg ko rek mooy kuy dund du xeeñ su dee du mat a wax donc danoon neex yàlla jox la teraanga nga du fekk ndey ak baay mais am na cin yoo xam ne boo ko yàlla naree yekk faaw mu supprimer ndey ak baay ba noppi soo ko soo ko ñurub ndax la mi daw mooy su cun li ñoree ñu ne su duggul woon ak man kenn du ko fi taalee motax yalla bind na ci ay mbindeef yo xamne kenn du leen japp otage ci sen liberté bop lañu nek motax kéro bima waxé né ma dama soxla won mak mbay ak mar fouti ñew fekk ñu clinique ba manako dedet mu insiste ci bu baax manako duko def de parce que clinique yi ci Dakar lima fa yobu ci ay malade xawmu nuñ tollu musuma yóbbu benn journaliste ci benn clinique naan ko kaay jël image aw ma sax temps boobu noonu ci laa ko ne ko waxal waajur bi ne ko sëriñ mu ne moom du charlatan donc ci mission wu jaamur la nekk su ma xasee def farata rek fàtte naa ko maa ngi ci leneen bu yàlla dogalee mu war maa gis dana ma gis nag te loolu rek laa gëm nag lii moo doon kàddu yi tey bu jubee nañ ma ko baal bu dëngee nañ ma ko baal yàlla na yàlla def wér ci kàttanu sama borom te yàlla dina def wér incha allah. jigéen ñi mënoon ko. صفية يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة أمون صفية dellusiwaat naa beneen yoon ci fesal mbaax fesal itam njariñ gis ngeen at mu jot ci weeru koor gi kenn bëggul bu sëriñ mustapha si dafay faral di wàcc ci askan wi di bokk ak ñoom la am waaye ren dafa di lu spécial ndax at mi ñu génn kenn bëggul bu sëriñ mustapha si dafa doon liggéey ci ay cellule yu mu doon samp nekk ci ay gox yu wuute ci biir ndakaaru yeneen ca yeneeni région ak selil yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi ren nak bi koor gi tàmbaleeg legi domi borom bammel bi di len gané ji ngir nemmiku len encourager len itam ci liggéey bi ñañuy fekki ci gox ya itam mu don mbekté ak ndam lu reey ci ñom semaine bi nu genn ñu demon ci selil yu ñuy wax manko ngor ak jom tay mu jaglel ko benen selil di taawu selil yi ñuy wuyoo ci turu taxawu doomu borom bàmmeel bi ñoom ñi ngi ci waajtaay yu rëy ngir teeru seen gan gu màgg gile sur le terrain jàkkaarloog jamu yalla yi ken yalla dem ñu daxam monsieur na dem ñu daaxam barki sayidina Muhammad ya mako jere te ya ko def ci man ci man ci man ci man ku baax dañu lay wane ken bugul ne na la ba jéggi nelaw suñu yaay ja nelawul mbokk julit yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara ñu ñëwoon fii ànd ak sëriñ kenn bëggul bu Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha si ñu ñëw fi li mu baaxoo def moo xam ci koñ bi la moo xam dakaar la moo xam biir senegal la moo xam biti Sénégal ca mooy taxawu néew ju doole yi delloo njukkal ñi nga xam ne bii ñoo am reconnaissance ci wàllu way juróom bu baax wa loolu gannaaw yàlla moo tax ñu ñëw fi ci itam ku ne xam na ne weeru koor yàlla suñu borom moo wax ci xadisul xusii ne bu dee julli yaa moom bu dee aj màkka yaa moom bu dee azaka yaa moom waaye nag asaw mu lii koor man maa ko moom maa ci fay loolu moo tax kon bu tànnee weeru koor ñëw nuyu sileen indaale loo xam ne lii ku ci nekk dana ci mën a jëfandikoo loolu dafay delluwaat rek ci alxuraan su ko defee kon fa tabaarakallaahu ñu jox soxna Mbaye ak Mar su ko defee mu sànni ci kàddu yu muy sànni ngeen baal ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum. sangu yu teddi soxna te soxna yu teddi ma ngi len nuyu di len ziar di len balu ak di len ñaan guddik jam ci kattu yalla ak baax man sama xol dafa fees mënumaa wax waye ñun defaluñ ko dara ndax nit dina dag ba dara dul dara top la ba dara di dara nga war ko baye rek ci muñu luñ doon ko xamé danu ko ñaanaloon yàlla na am si tey kenn mu ni ma mu ni bu keroogee ngeen wàcc luyaas dugal nañu ci ay kër. suma mbokku bopp yi maa ngi nuyu bu baax di leen ziara di leen ñaanal ngoonu jàmm ci kàttanu suma borom. ndax wolof dafay faral di wax ne ah, ku santul nit du sant yàlla alquran di faral di wax ne la in shakartum la azidannakum wala yamashanakum minha azabun alim kon nag xaalu ta'irukum maakum a in zikirtum bal antum xawmun musrifun ñun jàngantuwoon dañoo jàng baasi nimara ci góor gi Ahmad Sila Mbeng yaay ma sarax ma palante maam Abi Mbay sarax ma jat kon nag au passage maa ngi nuyu famille Ngéyeen yëpp ah di faral di wax ne dañ leen waxoon ne ci début koor bi mboolem fu selil nekk rek danañ fa wàcc incha allah bee paase ngor ak jom la woon jàpp manko tey taawu selili la dem ci heure bii maa ngi ci àll gosaas jàpp bawal jox leen seen wërsëg suba heure bii mi nga war a nekk sama mbokk bopp Baara Gaye bu yëmbal sud ndax ku santul nit du sant yàlla di sant tamit wax dëgg yàlla njaboot yi ci quartier bi yëpp kon nag bu kàdd yu guddee nañu ma ko baal bu dëngee nañu ma ko baal mais dinaa profité ci occasion bii ah di wax ne bépp cellule boo xam ne man maa jël responsabilité boobu de ci weer bii da nga waroon verser la cinq ci financement yi jéggal naa la ko ci weer bii defal ko ci kon nag encore une bonne fois yàlla na yàlla fa yiw incha allah bu ko defee maam Fati Khalifa ñu def Fatiha salaatu ala nabi mu seeti won ko am solo am njariñ ci rewam muy honorable député maire monsieur Baragay Mudon mu don mbekté mu reuy waxuma la mom sax waye ñun ñi muy andal ci terrain bi ñoy sax gëna nun ciofel gi nu am ci doomi borom Bugul bi kenn bëggul bu cheikh Mouhamadinil si bo boo ak mom ci terrain bi day mujj da ngay sa boss ndax nit ñi amuñu sago ci mom masha allah yalla bu yakar tas binu nu fi ci mairie bu sud dafa melni ni sax ñëpp dañu tecc sen bureau ndax kilifa ga monsieur Bara gay daf len wax ni damay am gan gu mag kon nak yeen ñepp na ngeen mako terul noné ko téro mu bekk ci lol sang bi man trop <laughs> ko tanar maa ngi ziar ah, moo tax wax dëgg yàlla keroog bi ma soxna Daba. ma dem seeti ko këram. munuma dama koy nëbbu sax baara ndax dama ko wax ndax dama bañ kàddu gu <laughs> ma ne ko waaw looy daw munuma damay bañ cat dugg ma ndax xam naa ne déplacé wu seeti nit moom yomb la ma ne ko waaw loolu de am na de ndax man principe bu ma ne ko nga baal ma ci kàddu gi muy gàtt sa gàtt sa dama koy dund mooy boo ma téyee cat cat laa lay téye boo ma cotoo dama lay cotu boo ma ngëbee ma ngëb la yàlla rek fi nekk nag te principe boobu ma ne ko salaam sama tàggatee kon nag moo tax bi mu ne ma keroog dama bëggoon ànd ak sa mbokku baara ñëw sa événement bi ma ne ko ce que xam nga zone am ñaata cellule laa fa am mënuma déedéet ma ne ko su ma ko fekk élection du taxaw de mënuma sëriñ ma ne ko li ma la wax takk ko nga xam xam nga nit ñi dañuy xëy xëy rek la jëlee doole bi fekk il y a quatre ans maa ngi liggéey te yëgul la xew ma ne ko gis nga opération ndox bi weesu zone am bi ma fa duggee léegi li ma fa investi ci budget deux cent cinquante millions yi teg na de te setu yaay yi ñëw ko organisé ak lenn membre ay cellules ma na ko kon miin naa zone am bu baax moom ma miinul nag waaye man miin naa zone am ma ne ko danañ faral fekk daje ay daje ma ak moom dinaa dégg tamit sama mbokk bopp muy ne Seck Melo ak sama mbokk bopp ngañ job ndax ngañ sama genn wàll la sama frère la tek ci duñu uppante ci dara moom soxna daba ne tek am yàgg mënuma dafa am lu mu la bëgg a ñàkk ma ne ko waaw mooy lan bu mu man xam naa ne yow gay nga mu ne waaw mu ma tabaara tamit gaynde la yéen ñaar man ngeen def de mu ne waaye ñoom dañoo yor ay milliards te man ay toq milliards rek laa yor mu tooj ma ne ma kooku lu mu am jox na ko nit ñi yaa ngi moom a yem kon nag dama lay ñaan ak kuréel gi ma yàlla boole ak yow rek nga jàppante ak moom ne ma may ma ma invité ko mu ñëw teew sa programme ma ne ko xam nga programme bi bii mooy deuxième édition. dama doon wax sëtu yaay yi na leen bu leen neexee dem leen ba pekkee si ngeen dëru ko fa bu leen jox benn autorité invitation bu leen jaarale benn publicité ci rajo wala télé te dinaa ko duy ba mu lang ci kàttanu sama borom même boo ko doon jaay biir cent mille dinaa ko duy ba mu lang ci kàttanu yàlla donc pour wan ko ne wax dëgg yàlla ak si keroog bi moo waral sama ñëw teew fay bor sunna yalla yalla yàlla fay yiw yàlla yàlla xeb doli bu kaddi yi nga bal mako rek bu <laughs> dëngee nga xam kaddi ndongo dara la rek donc vraiment li ñu ñaar rek moy yalla yalla sam yalla yalla xeb dolli yalla yalla sam yalla yalla doli sutura donc euh, voilà moom kérok bi mu waxé ma ko nga xamanteni man dama ko daan gis rek ci kaw ni di romb rek tegg ba japp sama ma ne ko connexion bi de vraiment moo tax def aussi mu nekk loo xamante ni lu ñu bëgg la lu ñu kontaan et jàpp naa ni aussi ki nga xam ne amuñu ku may moom dina kontaan ci lu mel ni ndax bu sañoon njabootam yëpp ràbbaloo ba kenn du leen mën a jàggiru loolu lu am solo la et non seulement fierté nga ci ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy wut ndombay tànki àddina yi di jéem ci loo xamante ni pour ñu matal sax dana am problème te ngeen ñu ciy fekk ndax lépp li ngeen di def moo xam ci wàllu inondation moo xam ci wàllu social la moo xam ci wàllu santé la moo xam ci wàllu financement des femmes la moo xam ci wàllu éducation la loolu yëpp ñun la war donc bu ngeen ñëwee di ci jàpp kéemtalaay seen kàttan duñu mën lu may donc kontaan ci te vraiment di la di teg ci sa wàccuwaay te xam ni fierte nga pour ñun dafa rëy ci ñun torop torop torop torop waaw ah, dafa rëy ci ñun torop torop yalla bu yenen mère yi di voilà hein, jaloux nak di voilà on s'en fout donc on s'en fout euh, <laughs> waaw. mais li macha allah dañ koy rafetlu lol di la ñaanal yalla may la ngeureum kilifa gi ndax ñun ñep mom lañuy ñuy di ñaan it yàlla sàmmal ñu muy Cheikh Mouhamadul Moustapha làqal ñu ko fa loxo yak kat eggul. ah di di di wax kóllëre gi yàlla nañ ko yàlla sàmmal di ci kontaan lool di ci bég mais nag di dénkaane waat ndax nit nag bu amee lu mu fonk bu gisee ku ko doy da ko koy dénk kon nag kon ñu koy ñu ngi koy dénkaat bu baax a baax a baax loolu rek lañ ci doon sànni. ah sëriñ bi kontaan nañ de kontaan nañu trop trop trop yàgg naa xam ni honorable député am na yéene ci yow ku la fonk la. firnde bima ci njëkk am kérok bi euh, Seck Melo di def anniversaire am fele ci Grand Théâtre fa nga ñu fekk mom mo la fa jitu fi mu togon jékki-jékki sa protocole ñëw di la xalal mu laaj kal mooy ñëw ñu ne kenn bëggul fi nga tok fofu la jog ngir ñu tegal la fa chaise ñun ñi ngi nekkoon ci ginnaw ma ngi ko seen ni ma man kal mo war dakh Bara honorable député vice président de l'assemblée nationale maire jog ngir koku mëna tok am place bu ko bu ko bu ko doy li nga ñëwee ñu ne ma kii mooy kenn bëggul ma ni si kenn bëggul dama koy dama koy gis mais bi ma ñibbisee ci laa dugg ci YouTube bi di gëstu parce que dafa maa dafa maa jaaxal xam naa ne ku am worma la ci sëriñ ci ci ci ci kilifa mais à ce niveau là vraiment danga nga suscité woon curiosité ci laa dugg ci YouTube bi di xool xam nag sa dayoo vraiment donc leneen li ma ci gën a yéem rek mooy li nga def nii tey ñu bari bu ñuy dem ci kilifa yi dañuy dëgmal programme dem ci kilifa ñëw ñëwoo gisuñu la ba ngay dëgmal programme bi dañoo dañoo ñëw ba jàll nga sol sa dàll ak ci ni nga ñëwee loolu loolu loolu jàngale la loolu maa ngi koy doog gis wax dëgg yàlla ndax nag kilifa nga ci réew mi boo yeble woon dong ñu doylu ko sëkk wax dëgg yàlla waaye nga bàyyi sa yitte te ñun en fait ci li ma jot a gëstu te xam ko sa 15 minutes boo ko doon weccu ci ay xaalis xaalis bu baree bare koppar boobu waaju yoru ko <laughs> temps bi nga ko bi nga ñu may nii amuñu njëg li ñun xam nañ loolu donc loolu valeur la tay vraiment ci sa biir kàddu buñ dé compté li nga tuddu valeur dafa bari ñu ngi lay santat di la gërëm bu baaxa baax loolu daal la amul ma ci sandi mungok kon nak téléspectateur ak internaute yu ñuy suivre gis ngeen ñepp ñi nga xamni ño ñoo nekk fii ci mairie bu yëmbal sud ni ñu teeroo bu cheikh mohammedine al mursid ku ci nekk itam na nga mëna a sak tiofel ci mom def nga ko kon nak mu ngok ni ma len koy faral di waxe rek équipe bu bu gul tv bi mission moy fessel mbax ngir ka nekkon ca safanwa wa xam rek mo la mëna a jariñ fii jariñ la fenen bu kenn bëggul tv bi ñoo ci wat ci fessel mbax comme ni ngeen ko miné gis ngeen bi koor gi tambalek léegi domi borom bammel bi kenn bëggul bu cheikh mohamdinil mustafa si al murshid noppaluwul ben yon ci di bokk ak nit ñi la ko yalla wërsegal tay nak mu seeti cellule bu ñuy wax fayda fayda nak ñu am fayda lañ ci baña jaawale deug ak neen ñu am fayda lañ ci xam ki leen di jariñ ñu am fayda lañ ci wane ni seddu nañu ba noppi gëmm fayda joojee laa ni musafasi waral discours bi bu Moustapha tenir di discours bu am fayda kon nag duma ci sori dama leen di bàyyi ngeen suivre ndaka la selilu fayda bu Moustapha billahi na seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim maa ngi jéggalu kilifa yi fi toog yëpp di sant ñëpp aw ma fayu kenn macha ndax nee nañu mun nga luwe ay chaise waaye ay nit kenn mënu leen luwe sama wax mënul gudd maa ngi leen di sant yéen ñëpp macha di leen gërëm di jël sama nuyoo sama lépp teg ko ci kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy mii ñun de bañ ko xamee ba tey namuñu dara te duñu daw duñu dàyyi ñu nag ñoom ba abadan di yàlla yàlla guddal fanam ba mission bi muy dox mu yegale ko ci kaw suuf xam nga nee nañ ku taxaw rek dañ laa téye mention spéciale à monsieur mon mari Abdoulaye Ndiaye daf maa jàppale yaakaar naa ni jëmm ji toog su baaxul woon ñoom duñ ma bàyyi may dem foofu léegi sama wax du gudd dama koy gàttal damay jël parole bi jox ko soxna Awa Niang sama adjointe mu yeggali maa ngi sant sëñ maaraamu sëñ Moustapha Sy maa ngi koy nuyu di ko delloo ziar bu wér a wér macha allah bañ ko xamee ba tey namuñu dara barki arxulaanu karim ñoo dugal ñu si këram gee dugal ñu fa daara jël utal ñu fa ab sëriñ bu ñuy jàngal di ñu jàngal ustaas a ngi nii toog di ñu jàngal heure ñu dem jàngi kii fu ñu woo dem lu nekk defal nañu ko fu waxul jox ñu ay financement ñu siy liggéey te laaju ñu waxuñu nañu indi temps daf ñoo yëkkati xaalisam bu weex tàll jox ñu ci ñu ci liggéey bi ci door war parce que xamna ay jigéen ak ñu top, ay liggéey kat lañu ha ah. ay door war ka lañ moo tax dañ koy top dañ koy top di nuyu kenn bëggul mu sëñ Moustapha ci ni dëgg fa yàlla kenn ñun amuñu rawate na man awañag mi man awma fayam ndax man dama febar kenn yëkëti di ma ta te laajuma dërëm kenn bëggul mention spéciale ñun nak leen rek lañ lay sax kenn gis nga suñu jumaa ji yaakaaruñ ci Macky Sall de am nañ ci musala mer maire yaakaaruñ ko ndax bu nawet ba amé ya ñew kan, ya ñu may xeer ya ñu ya ya nga catta bu la ya neexon tok table Tivaouane be ndax ya ngi dëkk bir table Tivaouane waye nak li nga bëgg ya xam yalla na ko yàlla defal ci kàttanu bur yàlla assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyoo bu baax di len ziara di leen jéggal bu baax tamit ci kàddu yi di jéggalu tamit en même temps ci toogaay bu yàgg bi suñu boroom dafa bind mbindeefam bu ñuy wax aadama alayhi salaam sarax ko mu représenté ñu ci kaw suuf mais ku ne xam na ne laata xaadam am na mbindeef yi fi nekkoon tooñante ëpp sa morom duma ju dul jeex yàlla namm fóotaat kaw àdduna bi muy kaw kab bi donc mu demandé réunion d'urgence ci malaaykat yi ne gannaaw li ma gis ci kaw suuf dama pare pour bind beneen bindeef bu ñuy wax xaadama alayhi waaye dinaa ko sarax jigéen bu ñu xawa ngir ñoom ñaar ci kaw suuf en muhammadun rasulullah di ñëw daal wax aadama alayhi salaam xawa doxal leen waaye ci seen biir mu def fa benn mbindeef boo xam ne sarax na ko tuuti puissance mais leeram dafa oyof muy wax iblis moo tax Cheikh Abdul Xaadir Jaylaani doon wax ne li ma xàmmi loolu leeru Muhammad ak leeru iblis mooy leeru iblis dafa yaraax amul puissance moo tax bëri na nitu yàlla bu ne àgg na te fekk dafa daanu ndax leeru iblis a ko feeñu mais leeru man nag ku nekk ak la ko yàlla di saraxee moom Iblis laanatallah yàlla ne ko kon nag yow Iblis usjudu li Adam mu ne laa ndax Adam yaa ko bind ci ban man yaa ngi ma bind ci safara kon man maa gën a Adam donc conflit juddu na. réewu sunu gaal wax naa ne la Moussa alayhi salaam yonent la yàlla sarax mbindeef bu dul yonent mu war a jàngal Moussa alayhi salaam ci ngay déggee ne sant mbaax tënkuwut ci loolu xam-xam tënkuwut ci loolu donc message boobu cellule fayda ñoo ko moom parfois ma dégg ci ñoom. ñu ne bu ñu waree jàng si walla bi ñuy soog a samp cellule fayda yaa da de bourgeois tontu bi fii lay safee mooy seen patron ñoo raw ñu fi nekk barki muhammadun rasulullah bu dee alquran aw sidi alayhi wa ratilil a tartila maa leen ci raw uruf par uruf laay déchiffré te woonaa la ci ñoom ñëpp nag moo tax ku ci wóolu sa téere dëppal ñëw ñu ñu wér kàggu yu ma jàngal leen ñoom lu ñu xamul ci alquran moo tax ñëwuma fii tey pour le membre de cellule jamais parce que man damaa jàng Baasin Mimara jàng liif Lam Xasaxeer taal matum fajar jàng taal matum timis jàng taxali ci ndag me xaxam bi ngir yalla sarax ma ci leer kon man sama nday yaay Fatima daf ma sarax dara jurom ñeenti at la taxaw ci daara def dëkkee Yelwan, ay yalwaan ndek yalwaan reer sama bindu su dawul mokk toolu bisab ba ma daan yar day sumi sa ba nga desu tubay dong yondu na ci bu bisab bi katax bi dara mat ngir yalla nga jang force gannaaw dara, yalla ya sarax ma sama patron orienté ma muy mawlaay ak cheikh seydou mahamadou mustafa motax suma xamé leeru alquran wala ma am tofelu alquran grâce à maulaya ak cheikh seydou mahamadou mustafa donc tante bi simple na tund wi ñu nekk seen patron du ma raw ñu fi nekk ci alquran jaayuma bàkkuwuma de ci loolu dama yàlla saraxee man naturaliser ay mbootu ummu Moussa yi dul jeex doxal quatre ans fekk sama douze milliards mais ku manquéwul woote tàll la sa loxo yàlla ku ko ñaan mu may la di da loolu ngeen wax mais kañ ngay ñaan ya sa boroom ak ban heure la nit bu toogee ci ru xam ne patt ba ko mu toog donc bu kàddu yi guddee nañ ma ko baal damaa ñëwoon pour nafarantu rek te bu temps bi yaata woon tuuti danañ xam ne jàng naa liif lan la kon nag wa ma salika ala laahi bi asisin wa salaamun aleykum wa rahmatullahi taala wa mu ngoog kon nag téléspectateur ak internet yi ñuy suivre Lila la équipe bu bu gul TV bi jëlé li faida, fële ken cellule bu ñuy wax Fayda ken bu gul bu Serigne Moustapha si gané ji won len sagal lenitam. itam gis ngeen population bi ni ñu and ak mom gis ngeen jeunesse bi fi mu ne dañu taxaw temm ni dootuñu ñu bayyi ken bu Serigne Moustapha si muy and mom rek fepp fu ñu ko mëna gungé gunge ñun jeunesse bi daanu ko taxaw daanu ko gungé ndax nak dañu koy sago dañu koy gis ngeen seede yi nga xam ni population bi def nañu ko ngir yàlla xam ni kuy dund di xeeñ su deewee du mat a wax ndax nag ñoom nee nañu dañu gis lu jafe-jafe ci doom yi borom bàmmeel bi muy nekk ci dëgg di ko wax te sax ci loolu lu jafe la ci réew mu Sénégal kon nag yàlla nañu yàlla boole ci ñiy sax ci dëgg dellu siwaat nañu beneen yoon ci visite yi nga xam ni kenn bëggul bu ma cheikh Mouhamadinil Moustapha Sy Al Mourchid mu ngi koy amal tàmbali ko ci njaal benn koor gi boobaak léegi semaine bu ne daanu seeti ñaari cellule donte ni bi mu installé cellules yi ak léegi yàggagul dara waaye faw rekk mu sol dàllam dem seeti leen ca gox yenu ne seet ba xam mission ba mu leen sant ndax yegg na ci population bem déet gox yi mu jaar yépp benn demande rekk lañu ko defal te moo di yow yaa nu doy ci sunu gox bi loo bëgg rekk waxal loolee laa ni nag bari nañu ko bëgg ci réew mi te amuñu ko te moo di mbooloo muy xaar sa joxoñ rekk ñu dagg gis ngeen kenn bëggul bu sëriñ Moustapha Sy bu wàccee ci terrain bi cofeel gi nga xam ni nit ñi am nañ ko ci moom dafay mel ni dootuñu ànd ak seen sago waaye damay wax ni ku sa xol féex tuuti rekk faaw da nga ko sopp ngir yàlla ak njàmbaarte gi ne ci moom ku sa xol féexul nag sa xol féexul te wax naa ni xol bu féexul lu gën a néew lu muy def ci nit mooy dafay wàññib taar waxoon naa leen keroog bi nu seetee selilu fayda ma ni leen ñoom day dañu am fayda ci wane ni dañu seddu ba noppi gëmm ki amul dara ci fayda mooy ki seddu gëmm ba noppi piis keneen ku seddu ca leneen kon nak téléspectateur ak internautes yi bugul bëggul bu serigne selul si tay cellule bi mu Japo, won nyomrek cellule bu ñuy wax jappo jappo ñom rek ño wuyo turu cellule yépp ndax nak ci deug deug ñom ñépp a allah yalla na yalla gëna a kon nak dama leen di bayyi rek ngeen suivre naka la jappo ak yiire kenn bëggul bu serigne mustapha si ak ña nga jël nañ fay kaddu bismillahirrahmanirrahim wala hawla wala quwwata illa billahi alazim man Bayang Maar la ma waxoon rekk ca laay delluwaat man ku ma defal lu baax ma fay la lu baax fay ba rek delluwaat mbàtt ma ca daal keroog ba nu aaye fayda daa dikk njaate fa la ne ba minuit ñun huit heures lañ fi ñëw fa seen jàppale soxna njaate li nang may def ci lu bax mën ken bugul ta ken bugg rek ma ñor man keneen yoruma ko dul ken bugu lu may def ken bugu la tax man jàppewuma ken buggul ngistal jappewuma ko intérêt bëgg ken bugul ta bëggante bok def ci sama xol bi lu mu bëgg suba ba ngon ma nga ci celui la bëgg mu avancer ak ku len jàppale lolu ci lay dox tay ci lay dox ëlëk ku ma defal lu bax nak ma mom sama doole non stress non violence xulóowuma xeexuma waaye ku ma defal lu baax dinaa la fay ci sama doole lu baax. man maa yaay njaate sant ak gërëm ak groupement bi ndax kenn dugul di ndox mi amee moo ko ba sama kër gi te maa ñaan bu dugg sama kër gi bi ndox mi amee daaw ci nawet bi machine mbaa ngi ni ci biir kër gi saa wu ñu soxlaa di ndox dañuy génn machine bi man ko ba ndox mi jeex njaata nag wax dëgg yàlla xeetu ko la dematul nat amul tuutur amatul daayir lépp kenn bu gërëm la maa ngi sant di gërëm daal li mu mën ren yàlla ko mën de woon di ko ñaanal gudd gu fan gu andi wér gi yaram mënu maa wax ne mënu maa sama xol ma sedd mënu maa wax doo dëgg Sering Ken bu Sering Mustafa imam Cheikh Tidiane Kebe moo niu niyu di la ñaanal Jamu. dalal di ñaan yàlla defal la fan wu gudd gu ànd ak wér ak wërsëg jaamu gu ànd ak ngërëmal yàlla di am mbégte bu rëy ci déplacement bi nga déplacé jóge fa nga jóge ci yoon wi xaw naam am diggante bu naqari ak guddi gi ñu boole ko yendoo bëccëg koor ba ngoon nga jóg ne da jóg ngir jokk ak bokk mooy itam jóg ngir matal kóllëre itam yaar yëpp nga boole toujours maa ngi lay gis léeg-léeg ma gis ngay dem ba ci kaw garab yeeg yëpp di ci joxe ay njariñ di ñaan yàlla na yàlla defal la jàmm ba képp ku am yaakaar ñëw di ñaan lu ci yow yàlla mi nga xam mooy docteur ba mag bi yàlla na yàlla fajal ko aajoom bi jaay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah ak ñëw bi nga ñëw fii ci koñ bii nga xam ne ñu bëgg ñoo fi ne fa ci nawet bi jamono bi doyee waar itam yëg nañ bi fi ñëwee machine bi ñu fi indi kon nag ñu ngi lay yàlla yàlla na yàlla doole dëhëral sa taxawaay yàlla bu la yaakaar yaakaar ji tas ah fa tabaarakallaahu kàddu yu lañ ñëwoon nañ ko ci yëkkati jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla na yàlla guddal sa fan. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu bu baax di ziyaare. di jiital ci nuyoo bi imam Kebe mi nga xam ne mooy imaamu gox bi di ko jox wàcc waaye bu baax a baax di nuyu bu baax sunu gan gi nga xam ne moom lañ fi am di gan gu tedd gan goo xam ne vraiment ku gox bi di sagoo la ndax li muy def ci biir gox bi ñoo ngi ciy dégg ay écho yu favorable di ci am mbégte bu baax a baax xam naa mënoon dañoo doyloo sax li imam bu wax ndax matale na lépp macha allah waaye rek daf di mënuñ cee bañ a sànni kàddu ndax ñun la yàlla nattoo ñu nekk chef de quartier fii ci gox bi yàlla nattoo ñu aussi ñu nekk ay représentant au maire di adjoint au maire fii ci commune jàmb Diamaguène Sicap Mbao donc di la dalal jàmb bu baax ci commune jàmb Diamaguène Sicap Mbao di la wax ne commune bi sa commune la gox bi sa gox la euh, ni ko imam waxee ni ko imam waxee tamit ci ñi nga xam ne ñoo dëkkee gox bi yàlla dogal na ñuy ay gor yàlla dogal na ñuy ay jàmbaar yàlla dogal na gox bi di jànkonte ak ay jafe-jafe yu metti surtout ci période inondation ñuy gis saa su nekk ci soxna njaate buy ñew muy andi ay jappandal ak ay ndimbal yo xam ne danaan ci yaw la bawoo ñu ngi la ci sant bu baax di la ci gëreum di ñaan yalla yalla yokk la yalla defal la tawfiq yalla aral la bopam ñu ngi santaat bu baax di assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sangi soxna yi ma ngi leen nuyu di leen ziyaara di len balu ak di len bal di len ñaanal guddi jam ci katunu yalla suñu borom di jital nuyo bi ku ñu amul ku dul mom serigne ken bugul bu serigne Muhammadul mustafa Sy lom de Dieu lom patience lom de l'année macha allah kontaan nañ lol ci dom borom bammel bi man tay sama xol dafa seddu guuy yalla xam nako ndax limu ma defal dafa reuy te defaluma ko man kessé Cellule jàppoo don ben bu sëriñ kenn bugul bu sëriñ Moussa Sy ñom la téral ñom la sigil ñom la sagal té yag na ñoo sigil contant na lool ci mbooleem cellule bi nga xamné ne na fi ma ngi leen nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen bal di nuyu ñep di sant salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi tok fi yëpp ma ngi nuyu ñep ku ci nekk su tour ak sa sant waa jàppoo ay xale lañ rek nga dooleel leen siggil leen yërëm leen ndax moo waral lii tey te du tey rek nga def lii ba mu méttee lool ndox mi bari lool fii fees dell ak ndox ba ñu gestoo gisuñu kenn yow lañu gis nga gaare sa oto nekk ci ndox bu nga gaare soo oto dugg ci biir ndox mi nekk kook ñoom di ŋacc ñu ne déetewaay nga dem indil leen moto pompe ñu ne déetewaay nga leen di jox gaz waa ñuy ŋacc loolu ku dëggu rek moo koy mën jullit rek moo ko mën ku baax rek moo mën loolu kon waa koñ bi yëpp dafay wax seen tur ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal yàlla foo bëgg a egg yàlla nga fa yegg waaye keroog dañoo ñëw sa programme mënuñoo dugg te ñu bëggoon a ñëw nag xool ba xam ndax ñun ñooy waa ngoyaan gi ci Sicap Mbao lool rek xawoon na maa naqari tuuti ma ne su ma la gisee dinaa ko wax taalibe sëñ Moustapha ngi doomi yaa Fatima Dia ngi Singapore social Eh kan Assalamu alaikum warahmatullah maa ngi nuyu bu baax di leen ziara en même temps di leen jéggalu tamit di bu bi ndax biñ koy door dan ko dooree ak yéene bu sell te liñ ciy def dërëmu naar du ci dugg dërëmu tubaab du ci dugg dërëmu état du ci dugg man sama ñaqu bopp lay nekk parce que loolu laa gëm di sant tamit bu baax Cellule Diapo parce que dañoo bokk ci njaboot yi nga xam ne waroon lan leen dem seeti ñëw seeti leen masawu leen ndokkeel leen ndax niñ bokk ak liggéey bi te tournée bi du yem rek ci koor gi incha allah fas naa yéene même bu koor jàllee danañ delloowaat mbàttu ma ca ndaala ndax àdduna ñaar rek moo fi nekk bu fi mbaax nekkul mooy fi dara desu fi ndax alal du fat dee gàcce lay faj mbaax ku koy jaay ba àgg ci Muhammad xam mooy sa patron teddaange ak yiw ku koy jaay ba àgg ci moom xam ne mooy sa patron donc loolu moo waral suñu teewaayu ci ñoom comme niñ ko teewee ak ñëpp benn lettre laa mos di wax muy képp kuy ñëw ci daara ba te sa sang joxu la ndigal bu fa ñëw képp ku fay ñëw te sa kilifa dakkarul ak yow bul fa ñëw parce que man soxlaw ma mbooloo bu amul ngërëmul kilifa ndax sama ndey daf maa ñaanal kon nag tey dañu ñëwoon di ndokkeel suñu mbokki bopp muy sëriñ jàppu di leen ñaanal yàlla suñu borom ñoom ak ñu ci bokk ñëpp yàlla nañ ko muurloo waaye nag di sant tamit bu baax mboolem ñu bokk ak liggéey bi yëpp waaye dañu toll ci jamono biñ toll dégg naa imaam wax ko sànq délégué de quartier wax ko sànq ci mbokk bi doon jël micro sànq wax ko muy waa Ngoyane démb ci heure bii maa ngi ciy dalal ay kilifa ci gox bi ne leen wër leen Tiwaawan Jaksaaw Lamsaar ba mu daj bépp lamp bu fi def leen bilan ñëw ma jox leen ngeen taal lamp yëpp donc ne leen jamono biñ toll ku yaakaar ci état mu dimbali la xamul lu xew

te du ci koor bi dong laa yemale programme yi même après koor dafay génn dama pare pour génne bis te cent millions yu tëjul dërëm pour cellules yi wër adduna bi yëpp ma transféré ko même bu laajee ñu reprendre yeneen financement sans caution sans garantie sans intérêt dinaa ko defar man sama alal maa ko moom kenn saraxuma ko yàlla ak planté moom la ko sarax ak say résultat donc nag du ma fekk kenn sa biir nekk naan dama la jàppale ya ay ayyuha mu mudaththir xum ba noppi wa soog laa fekk ki taxaw moma jaxal way ki tebbi mom jaxalu jaaxaluma ko ku bëgg ñu jappalé da ngay taxaw ba fekk sa la ci terrain bi kon nak bu kaddi yi da ngeen mako ko baal bu dëngee da ngeen mako ko mom moom ci càkkartaay ma ngi nuyu yedd di leen jaara di leen baalaax coono gi waa organisateur la même chose non rek Serigne fayda mankum ngor ak jox si lañ bokk taxaw taxaw temm jaayante fayda Serigne Fass Mbaw benn baraat ñëpp sant nañ leen gërëm na leen ak ñeneen ñi nga xam ne tamit teewuñu te ñoo nekk ci zone yi yal na yàlla fay jiw wa ma salik ala ibrahim xafisi wa salaamun aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaw ana mu ngook kon nag téléspectateur ak internautes yi ñuy suivre gis ngeen équipe bu kenn bëggul TV bi ni ñu leen taataanale kàddu yu nga xam ni jub na foofu ca selilu jàppoo nekk fële ca commune jàmm gën Sicap Mbao rawatina Talimam Jaara ba nga xam ni fa lañu doon amale xew-xew bi kon nag équipe bi yépp ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal seen Pastef ak seen détermination yalla yalla motali tay nak di ngeen gis benen xar kanam di sorti bu nga xamni sorti bu spécial la ndax ken bugul bu serigne Moustapha si dafa jog tay ngir seti ay bokam fepp fu jolof-jolof nek mba nga bok ci ngéyeen te nek fi ci lamsar te mana tewe besu tay bi tewe nga ko ngir sargal ak njukkal jambar ji di kenn buggul bu serigne mustapha si ñom itam ñu wane ni sagam ña ca walando wa daanu ca ten ba massa ña ca pind ba ñom ñepp fi mu ne danu takku taxaw tem ni ko ñi ngi ci sa gannaaw lo bëgg waxal ñu and ci ak yow sha allah kon nak serigne bi fi nga tek sa tank ndaka jek dafa mas a ndax ko am kilifa gu melni ni cheikh Mouhamadinil mustapha si al Murshid. ba max la du yomb rawatina nag mbokki pas-pas ak mbokki deret yépp tàllal la loxo ngir ànd ak yow ci liggéey bi loolee aw sas la yàlla na yàlla mottali ko kon nag duma sori dama leen di dégtal ni kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy duggee fii ci Lamsar contentement ci turu kër gi yëpp ak say bopp ak dëkk bi yëpp nag dalal la fi xam naa sayin pour li ngi nekk pour une première ci suñu koñ bii waaye nag ñu ñi ñuy séntu woon bu yàgg la suñu diggante ak yow waaye nag ndokk di ko yàlla jaarale ci say bopp ndax nag lu ne mën nañ ko waxal nit waaye toujours dañuy wax rek ndax bokk yaa ko wax bokk fi la say gërëmee ba pare nag nga doog a yor mbaax di ko tasaare ci àddina bi. xam nga tax ma yëngu tey damaa feebar ñetti weeru yàlla juguma waaye gay ma si rek ñaay lu yëngu lu ko yëngal ko doole. macha baaba mi day gor di gar mi bëgg maara bëgg deretam mën na baaba li la booleeg maara du dox suukar deret la jàppal góorgóorlul fokk yóbbuwu gay njoora yaa nga yàlla yàgg sa jàmm waaye kii ñu dëkkat ci kër kee ñu dàqaleeg luwaas kee ñu dàqaleeg fande fayu courant fayu ñu ndox eggatal maara anamu kee ñu segal kee ñu dimbali xaalis baa ngi yaa ñu jàngal diine yaa ñu xamal àdduna maara ñoo la mag maara ñoo la mag waaye yaa ñu jàngal diine xamal ñu àdduna maara nga yar ñu yokku ci ñun ngor jom wallahi Gueye Ndioro tey bu ma teewul gorow ma bàkki xalifa Malick si yaag Baba Gueye ca kaw ca kanam rek yaag say bokku ku la xaar yal na xaddi ñun ñii ak yow ca kaw ca kanam jolof jolof yi ñun ak yéen ca kaw ca kanam ba jolof ba jéeri ku ko bañ yal na nga dee sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di la ñaanal yàlla yàlla yàggal sa taxawaay daaw bi ngay ñëw Dubaay fa la ma fekk waaye bëggoon naa gise ak yow waaye yàlla dogalu ko woon kon nag ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla defal la tawfiix ak taysiir mu nekk koo xam ne nag dafa fonk ay mbokkam lool waaye sëriñ bi ñi lay xamal ne la taxawaay bi nga am ci gox bi gis nañ ko yàlla yàlla yokk ko kattanal la cofeel bi nga am ci sa wayjur yal na yàlla def ko muy ramb ëllëg yowal ñu ngi lay ñaanal yal yàlla taxaw la sàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa wa salaamu kenn nitu social la kenn jullit la kenn bëgg na nit man mii de bàyyi la ma def saa yu ñëwee suturaal ma set ma bu ma soxlaa dama papa dama la soxla wax ak man ci njëkk teraanga te lépp lu mu wax ci lu baax lay wax dëkk bi te nag wane na ko ñëw na ciy bokkam papaam ji suma mag la ah, ay baayam yu ndaw ñëw ñëpp samay cousin lañu bëgg jeunesse bi di leen dugal ci diine di leen dugal ci lépp di def social nag chef de quartier yëpp yëpp yëpp yëpp kontaan nañ ci yow parce que li ngay defal seen njaboot gis nañ ko defoo njistal da ngaa def uniquement pour dimbalé len té askan wi tax nga jog kèn yalla la yalla ar li nga bëgg yalla la ko yalla may yalla la yalla ar yalla la ar la aar assalam wasalaam. alaykum mbolo mi ma ngi nuyu ku nekk sa tour ak sa sam man nag tay dama ñëw taxaw taxawayu acteur de développement am ay points yi nga xamne dañ ko souligner wul ci kenn bëggul bu seigne mustapha foog naa ne dafa am ci éducation foo xam ne moom def na ko fii ci biir këram xale yi ñu ngi fay jàng loolu foog naa ñëpp gis nañ ko beneen bi mooy vole assainissement assainissement au niveau de Tivaouane Diacksao man maa ko yor commune bi yëpp lépp lu fi ndox man damay ñëw taxaw di def intervention fekk fa équipe ma ne équipe bi ban la ñu ne ma kenn bëggul moo andi équipe am ñuy assainir kon développement wessotul lolu ci commune Tivaouane Diacksao bi nga xamné ne bugul mi ngi ko fi def kon donc message la rek bu may jallalé di rafetlu lepp di balu ak ñepp di bal ak ñepp yàlla nañ yàlla boole jéggal merci. tay dañoo contane ndax deret ñu yëngal li naan ku doro yëngal nga yëngut waajé mo ñu mo ñu yëngal ndax ku ne doomi bàyyi neexu da nga gis ko bokk geñu li wax ji reey reey reey rep ciow li ciow li yow la geñaam si rek donay aadaak abi donay ngilaa bi donay korka géey naam géey sama rakk ji sa soo ci ñun rëkk te doo ñu rëkk sëñ baaba bi nga seet si tey nag dañoo kontaan lool lool ba ca kanamu yàlla ndax lii nga def dafa rëy lii ngéyee na ko moom ngéyeen laay seet si daf ñoo neex kon nag li nga def tey sargal bi nga sargal sëñ baaba neex nañu sant nañ la gërëm nañ la géey sa jaam bi nag kontaan nañ ñëpp ñi ci ñëpp kontaan nañ géey sant doomi bàyyi di sant góora di sant Demba di sant ñëpp Serigne Gueye suñ mag ndax lii dafa neex tey ku xool xami famille Gueye ñii ñëpp ñëw maire yaa ngi toog kontaan nan Adja Wuli maire Sarr ak maire Khady ñëpp kontaan nañ Gueye xam nga ne yow boo wootee danañ la wuy si Gueye Ndioro jërëjëf Gueye yal nañ fi yàgg tewee gi ngeen ji ñoom it kontaan nañ sa jabar yi macha allah yal yàlla la fal cet Gueye Ndioro may wax ne moom taaliba Serigne Moustapha moomu toog ku ma am mooma ko gënal ndax man ak mooma ba tey mu neex maa ngi sant di gërëm di ñaanal yàlla kër gubb sa ndam bi yàlla na ko am say doomi baay say jaam ñun ñëpp a taxaw ñun bëriwul aada rek la korka mënul faale yàlla na yàlla guddal sa fan loolu rek laa bëgg nee na moom yow mii da am soxla ci moom woolu ko mu ñëw numéro téléphone numéro téléphone bay ngeen nii ak moom kenn xamut ban lañ ci def ñu waxtaan nga waxtaan ak moom su fekke neena na li wax du deug yow man nga ko confirmer ya nga tok te lim ci gatt gatt lum lum la wax dalay wax lool lay def dang koy wax lool lay def lool nga koy wax lool nak mi ngi la ci sante bu baax di la gërëm di ñaanal yalla neena bu doon daf la koy sosal billahi diko wax ci mbolo mi ñu tok kon du ko wax sax nag sa kanam nga koy deg ndax kon du wax ne ken daf ma woon wala dama ko gissoon neena dang ko def nday nak mu def la doom ñi ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yalla say jaam nak ñi ngi ni ak sa law bee ngi nii beneen baa ngi nii toog maa jiitu Assalamualaikum, ñi ngi nuyu assistance bi yépp di kontaan lool ci jataay bi dama seeti kenn mu ne ma àjjuma famille ngeen ñoo aye foofa na xanaa kenn du fa gis Max Mbargane lu mu fay def kenn nag mbokk la dama romb ci koñ bi gis góor gi wax na ko camion souf yi jël ko fune diko di ma gis pompe yi ñuy mank ndox yi ma wa li ah maire bi da jambar la ñu dama ma du maire bi kenn la mané ah li de bu ko jambour defo nit nga contane ci na mbokk def ko comme li ñuy wax rek yow comprendre nga né bu la siwo doye yalla jox la pandala séddale lo moo sa wërsëg yaa ñi nga tané dañuy ñaan nag yàlla saxal ko ndax yow sagu mbokk gi nga sagu gox bi nga jiitul ñu ne ci sa ginnaaw loo wax ñu suul ko kon ñu ngi lay sant di la gërëm li ci des nag nee nga bëggoo ko waaye nit ñoo ko bëgg nit ñoo ko bëgg ndax ma laa jàng xam nga li ma la wax te nit ñi am nañ ci yow yaakaar boo bañee dañ la ko forcer ndax liggéey boobu taxawaay boobu nga taxaw ci gox bi baax na jërë ngeen jëf. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la sargal man de buñ ne kenn bëggut dama ne kenn bëgg na laay wax kenn bëgg na Maxime Bargane sama grand jërëjëf bis buñ tollee ci politique bu boobaa nit ñi ñoo lay xëcc ne la yow la ndax ce la ngay liggéey ci lañ lay wooye ñu waxtaan nag ci yu bari ma waxal ne leen dëkk bi amuñu ay làmp de lëndëm na lool nga ne bu soobee yàlla dinaa ci taxaw ma waxal na la dëkk bi sécurité bi dafa manqué dañoo war di fay par weer ñetti téeméer waaye nit ñi de dañ koo tële nga ne ma dinaa ca def lépp lu ma man ak yeneen ak yeneen kenn yeex na ma laa xam waaye dinaa jàpp ci sa ginnaaw bu baax a baax ndax xam naa ne yow ku jàpp sa ginnaaw dina dem fu sore sore ma lay ñaanal nag ma lay ñaanal sa taxawaay yal na gën a yàgg yal na sa fan wi li nga bëgg yaa ko xam yal na la ko yàlla defal li ngay namm ci gox bi na ci la ñuy ànd ak yow ba keroog ñu koy gis rek jërëjëf kontaan na. salaamaaleykum wa rahmatullah. di nuyu bu baax. mboolem famille ngeen yépp yal na yàlla fay yiw. di nuyu suñu mbokk. góor gi Habib Niang yàlla na yàlla fay yiw dafa am jamono ci ginnaaw moom góor gi Habib Niang mu di at ci ginnaaw gannaaw bi ay nit yàqe lenn ci samay alal mu ñëw seet si ma masawuma benn kilifa laaj ko lu tax ngay dem ci kenn bëggul mu ne ko sama deret la et puis sama doom la lu ko dal maa war a jiitu bi mu ñëwee ma ne ko dafa am lu nit ñi di jaawale mooy nattu ak nomination du benn mais du nattu mi nomination la ndax yàlla noppi na yàlla li mu yor da koy jaay prix la faw nga fay bor bi pour mën koo jot ndax yonent yàlla yusuf alayhi salaam gannaaw bi ko yàlla saraxee pouvoir yépp mu toog ak yonent yàlla yàqub waxtaan bés yonent yàlla yàqub laaj ko ne ko waaw gannaaw ba lii yépp accès noo def ak sa doomu bàyyi ndax ñoo la jël sànni la ci biir teen yàlla sarax malaayika mu sarax la ci ismulaay la azami yaa zaanihu kullu masun sëkkëre ba génn la ci teen ñu teg la ci kaw jaay la ba fi nga jaar ba àgg ca pale ba tuuma dal sa gannaaw ñu dugal la prison nga firi gént yàlla jox la nomination nga toog ci kaw pouvoir bekkoor juddu nga teral say mbokk lu tax bi nga jekkoo faytuwoo ak ñoom mu ne ko bàyyi da nga waroon laaj li ma yàlla defal sama diggante ak samay mbokk ndax yàlla li mu yor prix la bu muy jaay te kum narul yenn nag du la tey ci loolu laa teg ne ñun famille ngéyeen wax naa ko keroog donc mën nañu am distance mais benn lan parce que bariwul ndax man ak ñoom benn lan amul kenn ku ma ci jàppal lu toll ni tarfatal ayni bu benn natt wala balaa nare wàcc ci ñoom yàlla naa ko yonente ñëpp mucc ci leeru yonente bi parce que Maodo moo waxoon ne wa raddini bil xadaa i rabbi mu sabbirani xalal balaayika yaa rahmaanu yallaahu te nag mu waxaat ci beneen facette ne allah yaa rasulallah kulli wa jumlati bi mu wax ne yow yonent bi jot nañu rendre la compte ndax jamono bi tumuranki na lool jamono moo ñëwaat moo tax li sama mbokk bii wax muy mbokku max li mu wax moo am man at ci ginnaaw ñu dajee ci mbedd mu wàcc nuyu ma ma ne xool ko ne ko dëkkuma ci mbedd jamonoy doxaat ñu dajee waat waxtaan man ak moom ma laaj magum kër munuma sa deret la sa doomu bàjjan la kenn gën la koo jege ma ne ko kon nag bis ni tey bienvenue barki démb recevoir naa ko moo soxna ami si la bële ñu waxtaan ci lu yaatu waaye toujours benn tontu laa leen di wax mooy man politique ma man politique gu ma man politique gu ma mille fois ci mission wu jaamur laa nekk li ma man ministre munu ko député munu ko ndax yàllaa ma sarax ci ismulaay la enzemi lu ma ci bëgg def def ko ci war naa ko keroog ba ngeen ñu def seen match ASC ETL samedi la tombé suma jour faj may préparé biñ leen di deux deux zéro Ahmad mi moo fekk ci kaw di jooy ma laaj ko lu xew munuma dañ ñoo deux deux zéro ma ne ko loolu jërul jooy sa bàyyi man ñi ne ci tund yëpp mane ko su fekkee loolu rek la may ma ma ñëw keroog sama téléphone laa jël woon Serigne Baba bii ne ko waa imam lu xew munu ma nit ñi de ñu ngi wàcc di ñibbi mu ne ah mu ne waaw ma ne ko kutel ma ñaari butéelu meew mais bu ko jox nit bënn ko sa baaraam tegal ma ci suuf mu tuuru xaw kan waaye bii ma ne ko du dem ci kàttanu suma borom ne soxna jaara wàcceel furna bi ma taal mu tàkk ne ko 15 minutes laa leen doon su ma leen égalisé wul jaar leen fu gën a ñaaw ci man du ma wax lu yàlla la dégg mukk parce que borom làmp bu tindi du ma leen ay minutes ma woo ko mënu ma égalisé nañ ma ne ko xaw ma par bii buñ fi indi woon 1000 sëriñ du dem ci kàttanu suma borom parce que PV bi dëgg naa ci suma tànk te du jàll. bu laajee ma sësir jawatu maam baaba ngay gi sax ñu jóg waaye du ma leen laal yu yaay Faatame rek laay wax ñu jóg yàlla ma ko sarax ci loolu laa teg ne su ma doon zone bi fii amul opposant bu ma fi tëx parce que kenn matuma ci ngont maa leen raw maa leen man barki Mouhamad mais heureusement dama politique wul peñ ci kenn mënu koo doxal te doo jaaree ci jigéen ñi donc ñu ubbi daara samp selil yi rabul tabaaraka di jolli ñu wut cellule des bale wut cellule des cadets ubbi financement yi ubbi yeneen ak yeneen yàlla di teg loxo ci lépp te yooyu ñu mënoon daaw ren lañ ko gën a mën moo tax su may def mbir defati ne rek lay tudd moo tax dégg naa sax démb ma jot benn message sama mbokk fuutu yu bii toog bu mu ñibbee ba pare di wàcc am ay 4-4 yu ko kar ne ko ndax yow yaay fuutu yu mu ne leen waaw lan la woon ñu ne ko ñaari condition lan la tegal ou nga démissionné kenn duggul TV ou nga changer version sinon on verra ma ne ko sa patron sonal ñëpp donc mu tontu leen tontu bu simple ne leen ki leen yónni mi ngi abonné kenn dugul TV ma ne ko lii mooy li gën a oyof ci yow ndax sama tailleur sax dem nañ ba teg ko pression ne ko bu ñawale ci kenn dugul ma ne ko li may solal rafet te jas yare leen arrangé wu te man lu ma sol du ko solaat mais dafa am yoo xam ne dafa xeebu parce que nit ñi dépensé nañ monde boobu donc nit ñi monde bi ñu toll mooy mbaax nit ñi monde bi ñu toll mooy xëccoo yiw ak teddaange nit ñi monde bi ñu toll mooy fexe orienté gor ba mat yàlla jàmm mais lii mooy bii bi yi deuxième c'est comédie kon yàlla na yàlla xeeb dolli waaye encore une bonne fois maa ngi sant tous les cellules ci banqaasu yaay Fatima yi di jaare ci bot bi soxna May ak ndax nag Lansar moo fi sama porte ci côté yépp ndax loolu yàlla dogal kon nag wama salika ala lahi fa ansisin wa salaamun aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu سيدي قاضي محمد مصطفى سي jox nañ la loo bëgg bismillah kàddu boobu kon baay Demba Gueye sa mag ànd ak rakam Serigne la teralee kàddu bi yàlla lay sa ndiglaay xam naa dolliwaat nañ daal di kaw di jaay Seydina Mohamed sallallahu alayhi dara jubóog sa rek balaa mu def tournée bi te jii la ko kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy doon tëj annoncé woon na ko keroog ci sortie bi nga xam ni defoon na ko fële ca Lamsaar doon seeti ay bokki deretam mu jëlati alal ju baree bari génneeti ko ngir askan wi mën a tal seen bopp ci feetu korite gi na mu ko waxee noonee la ko defee lépp lu mu jàpp ni fami yi dinañ ko soxla ci feet gi kenn bëggul bu Serigne Moustapha Sy yëkkateeti na ko jox population bi. kon nag ma bàyyi ñu suivre ndoo image yi te dellu siwaat ca kanam salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu bu baax di leen ziara di leen ñaanal koor jàmm ci kàttanu suñu borom di leen jéggalu bu baax ci taxawaay bu yàgg bi en même temps di leen baalu àq di ñaan yàlla suñu borom yàlla nangul ñu kooru jàmm incha allah dafa fekk lu mënul ñàkk la rek muy waxtu bu daan toll ci moment bii bu doon benn message te wala ñaar danañ ko jàllalante ak yéen te mooy événement la comme événement yëpp kon nag duma ma tàyyi di jàjj ak di ñaax ñi ma bokk ak terrain bi te mooy ngeen am yërmande ci sang yi te liñ leen jox ngeen doyloo ko teyam ci ñëpp bëgg nekk kilo waaye faaw am ñu nekk gen waa libar yàlla moo séddale noonu jamono jërul lépp événement jàll ngay teggi ay mbedd ak dugg ci loo mënut événement jàll ngay jàpp ndeg say moroomu naw la jaru ko ngalla ku si nekk lii sa wërsëg jàppal mooy sa wërsëgu ren déwén mën naa demee neneen mu rafet te bañ a ñaaw li ci waay jël mu néew mu bëri yàlla na barkeel ngeen baal ma àq baal naa ñëpp àq ndax amoon naa yéene événement yu continuer ci tournée yi ndax yalla xam ne budget bima ma won pour korité bi koor bi xaj gi sax laalaguma ko budget bi ñu won la wax pour koor gi xaj gi sax laalaguma ko donc dafa fekk programme ren dañ ko wajul won parce que bokul won ci liñ préparer mais comme ren di dewen lu ne xaj na ci à bon Salikon, wassalamu internet yi doon sen chaîne ken bugul tv ñi ngi leen di jaajëfal ci top gi di top programme gisoon ngeen ni mbedd mi dafa feesoon dell ak ay nit ba daanaka am na ñu nga xam ni taxawaay bi sax neexul woon ndax xataay ba waaye nag lañuy bari bari kenn ku ci nekk am na loo fab yóbbu sa kër ba sax euh, dafa mujjee des dañu ko mujj rek jël fataat ca kër ga loolu nag exemple la bu rëy lool dafay wone ni joxe gi muy joxe du lu mu cof waaye lu mu ngëpp la ndax jàpp na ni joxe mu jeex ba am sax xeyna ñu amul lolu defet la ci mom kon nak lolu xol bu yaatu te rafet rek moko mën yàlla na kon nak reportage tay bi lolu la woon ñi ngi leen di assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mo am rek ben mbokk buma bëgg tuddu cantam ndax mënoon nañu xaar ba suba sax bu ñuy tudd cant yi wax ko waaye itam dafay rafet ma waxal ko sama bopp muy kenn bëggul bu sëriñ Moustapha waaw ah tabaarakallaahu bi gàmmu gi di ñëw indi na fi fanweeri nag te ku ne xam na ne loolu tuutiwul boole ko juróomi gëléem fa tabaarakallaahu denre yi dara desul diggante oignon pomme de terre ay huile lu ne jënd na ko indi na ko fa tabaarakallaahu booleeg enveloppe yi mu ko booleel ba noppi ni xeeb naa ko ma defe ni kon nag dana rafet pour ñu tudd ko ba nit ñi xam ni boobu coono daj na ko ci gàmmu gi ñu di ko gërëm di ko sant surtout ci turu waa waañ wi ndax waa waañ wi ku leen indil loolu yaakaar naa fa tabarakallah di nga leen gën a jàppale bu baax a baax kon nag kenn boogul yóbbante baa ngoog fa tabarakallah